wute loolu. Oh. verser la nga toog nga xaar. non wuy ak yéen ñëpp di wax ne Baye Oussou da nga di sama xarit ma doon sama géwél nga doon saa géer bu yàgg toujours du ko taay di la ko wax. nee na sa baay saa la woon sa maam ak ba yàlla dogal tey muy man ak yow bernde yi nag doy na sëkk car macha allah reg nañ lool soxna mbenn mii wax dëgg yàlla gis naa diggante moom soxna xadi mii mu nekk lu yàgg lu lu dëgg la danañ am nañu musa na di waxtaane muy góor gu tedd ga góor yàlla gu mag ga di Seex Ibra xam nga ñun ñun géwél yàlla dafa baaxoo lu bari fekk nañ ko ci àdduna keroog ba nga xamee ne sëñ bu mag ba jigéen na maa yomb ba mu egsee amoon na benn géwél di wax Samba Saane muy nu liggéey si benn entreprise mu ne may leen ma fekkee tey nga na Cheikh Ahmadou Bamba bi doomu Maam Mor Anta Sali jii tey ba muy yóot ñëw gis sëñ Bamba mun ko sëñ Tuubaa fa nga toll dugal première ko fa mu saan toll dugal la poye moor dëgg la sëñ bi daawul sol yëre bu am poos bu làmb ci dara mu ne mu ne euh, mam Cheikh mu ne teral leen ko loolu am teral jox ko ci teraa comme maanaam géwél mën a waxtaane ku ne ci àdduna topp nañ buur topp nañ sëriñ topp nañ dammeel fu ne tonañ fa jiñ doomu aadama kon tey ñuy waxtaan nit ko xamante ne tuuti rek parce que dafa géej ga dafa yaatu ku ne xañ nga ci mooy Cheikh Ibra bu ñu ne Cheikh nag xel dem ci lu ne xel dem fu nekk ci àdduna te ñëpp yu ñu ci àdduna Cheikh Ibra tax fu laa fayda Cheikh Ibra ko njëkk a imposé jom Cheikh Ibra ko njëkk a imposé ba euh, mu ngi jugee Ndar Cheikh Ibra damel la woon yoru jabali damel yewaan Cheikh Ibra indi ndax lan wàccee garaat parce que Baye Fall yombut nag Baye Fall du maanaam du du yére du ay rasta Baye Fall noblesse la philosophie la yoo xamante ne xel mu set wicc moo koy doxee Cheikh Ibra ba mu ñëwee ba mu jógee Ndar ñëw bàyyi na fukki bitik ak ñaar mu ñëw di liggéey fii moom Cheikh benn nar mu sa jógee gànnaar des na ñëw doon seet si ki xamante mooy sëñ bu mag bi mais naar ba mu jógee gannaaw da ko indi woon mooy maanaam ñàkk julli Cheikh Ibrahima la ñëwoon pour dinga ci loolu moo naar loolu moo ko indi woon parce que dégg na ñu ne euh, ki nga xamante ne tey mooy sëñ bi tedd bi sëñ Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yor na taalib boo xam ne du julli du woor mais naar ba mu jógee gànnaar moom loolu moo ko indaal loolu la indi pour dingat li nga xamante ne mooy Cheikh Ibra ci li mu ne mu ñëw waxtu julli jot mu ne Cheikh Ibra nañ yasalaat njàpp yi ma jiite leen waaw ñu ne naar bi jiite leen naar bi buy julli de tari baqara ba naas yi al imran lay jógee tari baqara ba naas ñu wër Afrique te ëpp xam-xam ñuy julli naar bi muy julli am na benn kaamil gi mu fàtte fële nga xamante nga xamante ne mooy dëkk euh, naar yi fa la fàtt li nga xamante mooy kaamilam boo xamante ne dafa amoon yéene jël kaar bu ñëwee siyaare ko sëñ bu mag daa sànni kaabar ne allahu akbar xel ma dem sa kaamil ba sa xibra roccee ko si julli gi moo tax ma de moo tax ma de ñu pare naar bi sëlmal mu laaj mu ne mbooloon Cheikh Ibra mii jàng naa ba Naas jaamu naa yàlla ñaar fukki at ba yonent bi seet si gànnaar musuma mooy suñu borom musuma faat waxtu te li ma julli sell na ba suñu borom xamal ne man li ma julli sell na lan moo tax Cheikh Ibra wàcce ci biir julli ne ko ba ñuy julli sa xel dafa demoon sa kaamil bi nga xam ne dafa boo euh, jëloon boo ñëwee seere ko sëñ bi sëñ kaamil baa ngi ah doom moo tax ma yilimaan moom daan na wax ne man Cheikh Ibra su ma rustoon gars yi Bambey bëccëgu ndar kaam laa Baye Fall yi kaa leen dem àjjana leen jaar ci dee mun naa ko de doom est-ce que Cheikh ay waay ah. li mu wax sëñ sëñ bi am doole kay la ilaha illallah est-ce que la moo tax ma nee la waxtaanee ko sax day xaw a yéeme parce que nit la koo xamante ne nii foo commencé si moom rek mënoo ko jeexal ma ne la dana wax gaañi mun naa xëy bés ne bàyyi faale kaa dem àjjana ñu jaar si dee mun naa ko de doom aha kay sëñ bi mu ne mun naa ko de doom moo da xool góor yàlla yi ñu jara fonk lañu xoolee sëñ bi jamono ji li am si jamono ji si ginnaaw ci li xam mooy si xale yi dem si géej gi di dee te sëñ bi mus na koo wax te xalaat ne ak yi lii dina mus a am ne humu doom gis naa ndaw ñu bari des ci géej ndaw topp dërëm waxul wuti dërëm de ndaw toppi dërëm Baye Cheikh Galo moo ko doon toggal nee na Cheikh la da xëy di wax olof de mais li muy wax kenn du xam lan lay wax boo salaam bu guddi supp sow maa ko mën a dem supp sow bellee su ma ràññee su ma si Cheikh Ibrahima la ah, ah, ah Ousseynou déet déet déet déet déet ca yàlla Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima baax de man ne bu ëllëg yow man xayaamee koo ne yow mu ne du mën a mais bu ñu mën ma leen mën a ca yàlla comme que fi mu ne nii nag soxna Mbène ngi nii di taalib suñu affaire bu mag di sama soxla ndeysaan ah soxna si bëgg nañ lool gis nañ taxawaay wi bàyyi usu nañ xaar mu dal mu présenté ko kii sono su baax a ngi nii mu ngi bokk ci Baye Naar Fall Kawsara waa Kawsara Fall la Serif Assane Fall bokk mu doon nit ku baax ma bëgg ngeen fasante koo lëre ñun nag ay ndaw lañ li ñuy wax yëpp ni ñu ko wax loo yàlla def na ba ñuy ñëw moom day lañ ñu boole loon mais mu ne nit ku mat di jigéen ku mën góor nee naa si yoon wi góor yàlla la ci mu ngi ci liggéey loo xam ne téeméeri góor mënuñu ko ci loolu ëpp solo sànq nag ndeysaan li ngoom yëngu na fi moom tamit waaw tapalapa gis nañ berne yi yàlla ñu ko joxee ni ngeen di lépp jaar na yoon kon boog nañ def ñaan yitte yi ñoo bari ku ne dem si yitte yi def rek maanaam salaatu ala nabi téye ko bisimilahi rahmaani rahim ñaanal réew mi jàmm ak salaam ñaanal ndaw ñi ñi dee si géej gi yàlla suñu borom yërëm leen ak li fi am ci jamono ji passé ñi si blessé ñi si dese lépp yàlla suñu borom yërëm leen parce que réew mi suñu réew a jërë ngeen jëf ñëw leen jërë ngeen jëf kon ba bàyyi suuf ñu ngi yeeweeku ñun kontaan nañ lool jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yaay booy jërë ngeen jëf waaw kay jërë ngeen jëf may la si mu jàll ba mu jàll ñu yëg ci